fi yàgg te wér ànd ak Cheikh Mouhamadul Bachir ak njabootu Serigne Touba oh, oh, Monsieur le Président de la République jërëjëf lii rek doy na ñun taalibe Serigne Touba li naqaru Sénégal kenn waaye dogalu yàlla yi kenn du ko coow yàlla ko dogalu waaye yow sa jaar wàcc na ndax léegi nga dugg ci jumaa ji ma won la poste avancé bi fi ne nañ ko définitivement jagleel jumaa ji dinaa fi indi appareil médicaux dinaa fi affecté personnel ñu nekk fi di defar nga ni am na morgue man la amaguñu morgue nga ni ma dinaa fi def morgue waaye lii def ci réew mi yàllaa ñu jëlee ci milieu politique indi ñu ci sëriñ bi waaye xam nañu ni réew di doxee guddi ba ceeb timis tàkkusaan nga jël sa bopp di defaral réew mi dañu defee ni avion dugg avion dafa neex neexul dafa metti bala ko nit a xam ne dugg wàcc fii dugg wàcc ñu nit dogu ki mën a ñaan mën a xëcc mën a dogu ci moo koy ñëw léegi boo demee wax ko ni nga bëgg rek bu ko waxee lépp maase ñu takk ko teg ko ci sa loxo moom rek la am ñun xamuñu kenn sëñ Tuubaa rek la ñu xam sama mbokku taalibe yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm it sa ministre de ñëw na. waaye ñëw na ñëw na ànd ak yow waaye ñëw na te moom dañu di doole jël ndox waxumul dara amul dara xamul dara yow yaa man yow la réew mi wóolu teg la fii yàlla teg la fi yaa koy jox ay directives yaay clé de voûte de toutes les institutions yaay définir la politique de l'État dans sa globalité yow yaa yor le budget di ko di ko discuter kon lu ñu waay def yow la kon bu defee dara yow la moo ñu defal parti bi yàgg na ko trente millions yónni fi xaalis say xarit yoo xam ne bëggul la neex ñëw fi ay Omar Sow ak ñëpp ku jëne indi na fi teraanga te yow rek a tax loolu ñu ko wax buñ ko waxul soxor buñ ko waxul iñaan te ñun soxor ñu ñëw yàlla la yàlla fay yaa ngi dem nag ci sëriñ bi boo demee wax ko li nga bëgg rek moo ko yor ah, moo ko yor moo keneen boo dégg muy wax leneen it dafa gëmul sëriñ Touba ndax ñun sëriñ Touba la ñu gëm te liñ ko soxlaatu fii koo ci ni taxawal ci xaru bu ñuy teg tànkam di ko tekki te sëriñ Touba dox suñu diggante ak safara kon kooku lu ñu wax ñu def ko bu ñu joxañee ñu ànd ak yow bu nee ñu jàppale la ñu jàppale la na nga xam ni ànd nañu la te dinañ sëriñ bi maa ngi daaneel sama kàddu fi Mbàkke te Cheikh Mouhamad Bachir kat du toog may wax sëriñ bi nee na ndax ñemewu ma ko ndax kii rek la sëriñ bi waxal mooy kàddoo mooy ni jooram te li dem ci jumaa ji mu jaar ci loxo mii moom umb ko ndax moom lañ doon liggéey loo ko topp ci ginnaawam pali yi ñu fi def rek ëpp na 4 milliards 500 millions defaral ñu assainissement ba ndox du fi taa te fii géej la woon li ma koy assainir di dindi ndox mi ak Cheikh Mohamed Lamine Bara ñetti tuyaux la def yëpp nekk immergé nekk ci suuf ñu koy mën pendant une semaine Modou Mbaye Samb mi sapeur pompier la woon dama bàyyi may fekk ñu tabax si jumaa ji ma wax la ko mu bokk ci suñu programme boo ko def loolu dañ koy financé taalibe yi nga ne loolu sasoon naa ko 4 milliards 500 millions la

tey un milliard booba exonération yi rek sept milliards assainissement bi quatre milliards route yi assainissement bi deux milliards et demi route yi quatre milliards cinq cent millions muy sept milliards kon nga gàcce nga la jërëjëf président. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. am mbégte lool sama teewaay fii tey ci wetu Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké ci ndigalul xalif bi ñëw fekk si jawriñ Serigne Mbacké Faye fekk si fi imam Bassirou Mbow fekk si fi mbokk taalibe yëpp ci juma juróom ci juma Massalikul Jinaan ñëwoon naa ci ubbite waaye nag tey laa doog gis juma ji gis daara gis dayoo muy fierté ci képp kuy jullit ci Afrique juma Tuuba doyoon na misaal waaye lu ko jiitu jumaa njaareem dañu njëkk a taxawal jumaa Tuuba ñëw ci Afrique nekk jumaa yi gën a mag waaye Masalikul bii daan def fii ci xolu Ndakaaru jëf ju rëy la kon nag ñu sant xalif yi ñu ko sumb ak seen Muntaxa bi ko mottali nga jox ko taalibe yi ñu sant jawriñ Mbackiou Faye ci taxawaayam lu bare ci liggéey bi ginnaaw sëñ Bassirou Mbacke bi nga xam ni moom la ñu tegoon liggéey bi ci loxoom lu ci bari ci yow mi sëñ Mbackiou Faye xam naa lan ca def xam naa lan ca def kon nag ñu lay sant di la gërëm waaye sëñ bi moo ko mën a wax lu boppam en tout cas ñun état du Sénégal sant nañ la gërëm nañ la sant nañ bokk yëpp ak jëwriñ yëpp sëriñ bi dinañ dem ci xalif bi léegi ñu demee nga santal ñu ko itam ndax lii du liggéeyu caaxaan ku am yéene dëgg mooy mën a taxawal jumaa ji te talibi murit am nañu yéene def nañu ndigal moy li nga wax léegi kon nag jërëjëf seen taxawaay li ci des mooy li ma la wax liggéey boo gis saa yu ne dañ koy yokk mooy li ñu wax porte de santé bi ndax jumaa ji toll nii mbooloo lu fi ñëw ay docteur war nañ fi nekk en permanence laaj na lay ndax am na mbool kon loolu dinaa ko gàtt next support program way daw loolu sëñ Bassirou ci kàddu yu gàtt ndax waxtu waa ngi jot dañu war a dem ci sëñ bi moom laa bëggoon wax di nuyuwaat mbokk taalibe di leen sant di amin amin abonné wul ci suñu chaîne bii di Khelcom production te bés cloche de notification bi ngir mën a jot bépp vidéo ak fépp foo di nekk ci àdduna bi ak fépp foo di nekk ci àdduna